li nga xamante ni moom moo di présidentielle yu 2024 alors xam nga ni nag ci fan yu nekk nii yëpp ñu ngi nekkoon ci saytu li nga xamante ni moo di dossier candidat yi foofee ci conseil ba ñu euh, noppee ci li nga xamante ni moom moo di tirage mais nag depuis lors problème yi dafa bari euh, ci par rapport ak ñu recalé ak ba ci ñi nga xamante ne dañoo amoon ay doublon ñu mujj ñëw saafara seen problème ak ñi nga xamante ne jotuñu koo saafara ñu recalé leen finalement mais ñoom li ñu joxañ baaraamu tuuma moo di fichier bi ndax nee nañ fichier bi jotuñu ko am na sax ñuy wax ni am na ñu nga xamante ni ñan ña nekk ca daaf ñu ngi leen doon jéem a jox li nga xamante ni moo di fichier mu nekk ay accusation yu nga xamante ni ñenn ñi porté nañ ko ñenn ñi tamit am xel ñaar ci li nga xamante ni moo di euh, fonctionnement wu euh, contrôle bi parce que neen da ngay ñëw joxe sa clé ñu bàyyi fa clé bi mu fanaan boo xëysee le lendemain gis données yi nga xamante ni day ute ak données yi nga xam ne yooyu nga fa bàyyi woon loolu itam tey seen xel lu ni mel ban jàngat nga ci am ci fàttali nag maa ngi lire sànq tout ki nga xamante ni moom mu di l'expert électoral di Ndiaga Sylla def ci ab poste nee na d'ici le week-end le conseil constitutionnel publiera la liste des candidats qui sera suivie du dépôt et du traitement des réclamations au plus tard le janvier en vertu des dispositions de la constitution du code électoral et des procédures prévues par la loi organique sur le conseil constitutionnel les requêtes déposées avant la publication de la liste des candidats ou les requêtes collectives seront déclarées irrecevables ni dafa li nga xamante moo di ceytu ba ca moom mënoon nga ma ko bañ a wax. parce que defu fi dara waxu fi dara. amee ah, abu boobu nga defal Ndiaga Sylla moom mënoon nga koo bañ a def du expertu dara vrai expert électoral yi Pa Idrissa Fall Cissé la woon ak Pape Djibril ak kii Moussa Ath dama ne expert électoral fan lañ koy jàngee yow mii expert électoral nga boo couvrir ay élection luy expertise électorale. nañu bàyyi di ndax nit ñi ak usurpation de fonction yu titre yooyu ñu leen wax defar say livre di ko jaay consultant demoo Sénat dugaluñ la ca boolewuñ la ca nga am contentieux ak état bi gis nga li ma wax société civile u Sénégal ñooy problème mu Sénégal ak journaliste u Sénégal ak politicien Sénégal gis nga ñett ñi chaque jour ma wax ko mais bi yi mënoo ci ñoom dara parce que nit ñi ñooy dem carte di laaj mais société civile Sénégal ñooy problème bi mooy ñi jël société civile Sénégal def ko seen usine def ko seen industrie def expert li mu ñuy rappelé lan la koy rappelé. parce que yéen dama ne bu amee journaliste dama wax ni la loolu élection dama wax ni la dama wax ni la code électoral. yow amoo ko man amoo ko de. doo ma bàyyi Babacar kii daf ma ëpp ñaata yoon laa dem élection bu la bàyyi leen complexe boobu ñu leen di nax naan expert consultant international leneen ak leen ñaata sa expérience bi nga def nii ci presse ak journalisme dalal fi ku nekk yow yaa ko ëpp expérience mun nga fi dalal ku nekk wala juriste ñaan lay expert électoral. ce titre yooyu ngeen war a bàyyi Idrissa Fall Cissé mu ngi doon couvrir élection yi. d'accord léegi bokk ci parti. mais ñëwal ci gis-gis bi non moo tax moo tax ma lay wax. ñëwal ci ñuy rappeler dafay information. Ah, mais parti bu nekk amul chargé des élections. mais j'en profite pour remercier féliciter Pen euh, Penda Dieng bi ne woon mandataire u Pape Djibril Fall jeune. bokk ci forma ñu ñu formé ci leadership. moo nekkoon mandataire am ci élection man kii première femme. loolu dañ ko war a magnifier. d'accord tàcc k mais kooku rek tey bokk na ci expert électoral yi. parce que expérience bi mu def bële continuer waat boole ko ci bii dafa mos dafa seeti yi njaga si la gis nga séminaire yooyu ñuy dem di def utukaay xaalis yooyu ak conférence internationale yooyu ñu naan la expert électoral. d'accord bu ñu wax ñooñu ñoo bokk si ñuy jaxase réew bi d'accord léegi gis nga ñoo ñu naan la expert électoral. ak classe nguuda mbuub gi woote résistance ñu leen di fay weer bu dee 2 millions xale yi di dee yow ngay fayeeku 2 millions Abba Mbaye ko wax waxuma ko. ne yeewu askan wi loolu lañ ko doon fay conscience nga génn naan xale yi résistance résistance man ne loolu rek la jàng ci ci ci ci ci ci ci ci constitution bi xale yi dee ci ñaata dee nga am ci 2 millions ñaata weer yow bu ñuy résister ngay encaisser. bàyyi leen ñi ngeen naan ay constitutionnel te li ñu jàng ci constitutionnel yëpp ay régisseurs. d'accord nga retour war naan ma Ndiaga Sylla bi ñu ñuy xool tax dama ne mission lanceur d'alerte. il faut que mu leer. wax expert jox ma information Idrissa Fall Cissé. d'accord wala nga wax ma Moundiaye Cissé lan la wax. d'accord boo ma nee Moundiaye Cissé lan la wax wala nga ne ma Babacar Ba bu forum justiciable lan la ñu wax man d'accord naa waaye doo ma wax ñi nga xam ni dañuy def pression état bi di chantage état bi Sénat bi ne fi seen yoon nekku ci Sénat bi ñu def liste bi boolewuñu leen si ñu ne dañuy attaqué Sénat bi te amuñu qualificatif yi joxuñu leen marché état yi ñu jóg génn ci mbedd yi di wax expert électoral gisuma école bu ñu koy jàngale gisuma diplôme bu ñu koy joxe bu doon am dina As Babacar gi As Babacar doon ko wala Penda Dieng mii. wala naa élection ñaata at. depuis ba ma amulee âge vote maa ngi ci élection. wala sa mën di problème bi am ci ci bi ak transparence bi nga xamante ni ñenn ñi moo am nañ ci ay doute depuis lors. non xam nga problème bi am ci euh, euh, candidature bi fam ñaari choses yu si am mooy ce qui se passe actuellement au niveau du conseil constitutionnel moi hier j'ai Parce que le Conseil constitutionnel nous doit des informations. ouverture bi muy am le président du conseil dafa génn taxaw wax ne nii lay dérouler procesus bii lay dérouler dañuy jóge ci bu ñu defee tirage nii lay def te ku ne ay la yéwén gis na liggéey bi nga xam ne ni ñoom moom lañ doon liggéey durée bi ñu ibbee ba bi ñuy def ñu leen ci félicité ci seen taxawaay bari na lu ñu daan critiquer conseil constitutionnel gis nga ko ci kaw loolu liggéey bi ci mu njaay si seen liggéey boobu ba léegi doon parfaire di indi ay tirage au sort di indi ay solution ren am na commission bu nekkoon ci biir commission bi avant ñuy dem élection balaa ñuy dem ci ci affaire conseil constitutionnel dañoo publier liste bi gis naa ci turu ñenn ñi ñu ne ñoom ñooy siège commission national commission contrôle parrainage mais loolu kenn waxul mais ba ñuy contrôler parrainage bi nga jàpp ni euh, c'est-à-dire euh, nañu ko defee woon ca tirage ba mënuñu ko woon defe na parce que li nga xam moo moo moo njëkk nekk problème bi mooy ñoom seen hmm. clé ñu fa war a bàyyi ak seen i données loolu moo njëkkul dal seen xel. waaw léegi da may bàyyi ma ñëw dama la wax ne la règle yi bañ koy waxtaan ca place dañ ko waroon waxtaan homme politique yi ak leader yi dañ koo accepter ñëw boo am problème doo ko génn di ko wax. homme politique yi ba dialogue politique amee ci processus électoral bi dialogue politique du moo indi parrainage bi ñu bañ ko def ci élection locale yi dialogue politique du moo indi commission am boo xam ne dafay def contrôle parrainage dialogue politique moo indi waxtaan ba ñoom mu indi ay proposition bi ñu demee ci dialogue politique bi coow lii di am alerte nañ leen boobu ba léegi nañ leen waxtaanee parrainage bi ba ñu demee toog war a waxtaanee parrainage bi est-ce que waxtaanee nañu ko mais lañ fa waxtaanee mooy parrainage des élus lan lañ fa génnee comme solution mais am na ku génn Abdourahmane Diouf ñu félicité ko bi Abdourahmane Diouf génnee wax moroomu politicien am yeeg opposant bi dañ génn di ko xas naan ko amoon parrainage te pourtant la Abdourahmane Diouf doon wax di ay technique di ay leçon bi muy wax naan parrainage optionnel bi bu bu ñu defee parrainage élu ne parrainage dafay am parrainage ay mair ak ay député bu ñu ko defee bu ñu waree dem conseil constitutionnel il faut kenn ku nekk booy déposer nga waxaale parrainage optionnel ban ngay def mooy ndax da def élu bu dee da ngay def parrainage élu nga bañ a jël parrainage citoyen pourtant Abdourahmane Diouf bi mu génnee alerté loolu ñëpp dañ ne narul am parrainage attaqué ko xas ko wax ko lu mel ni xeme te ay opposants ñu mel ni moom ñoo ko commencé woon di ko def mais loolu tey boo indi conséquences yi ñoom homme politique yi bu ñu nekkee ci concurrence wala ñu nekk ci xëccoo duñ ci boole ci seen biir générosité ak solidarité ci seen biir dañuy dem ba ñàkk ñu doog ko boole seen i doole na commencé wax mais li am nag dama wax ne la dafa am ñoom Mouhamed Fadel Koné seen situation pour la première fois de l'histoire on nous parle des des clés bloquées clés yoo xam ne nee nañu bi ñu ko indee doxul waaw dama wax loolu kan moo ñu ci war a jox information commission bi moo tax dama ne commission bi man loolu dama woo mu Ndiaye Cissé yàgg naa nekk critique ak ñoom ak société civile bi mais wàllum élection gis naa ni ñu nekk ci di ci doxal lu bari saa yu passé ñoom bu ñu joxee seen explication da nga xam ne homme politique yi ñoo ñu doon nax la xew ca législatif yi ñu attaqué DGE salteel Thiendella Ndiaye ci jamonoy Barthélémy Dias kan moo yàqoon ay liste du homme politique yi waaw tey yàquñu fi deru DGE yàquñu fi deru haut fonctionnaire Thiendella Fall l'affaire bi doon jaa waa ji doon jaabante DGE rek film ba mu demee waroon nekk te warul dem foofu du DGE moo war a def loolu tey yàquñu deru DGE waaw conseil con après fin bi ñëpp xam nañu du foofu la war a dem Thiendella du moom moo ko fa war a dugal te yàquñu deram attaqué wuñu ko te homme politique yi ñooy ñooy def yooyu at beneen bi stop mooy bu ñu ñëwee ci conseil constitutionnel ñu dem commission commission bi génn commission bi daf ñu doon jox ay communiqué même man mii sax ci kaaw Anta def naa ci erreur parce que bi ñu nee amul amul benn doublon bi ma génnee damaa génn ma ne loolu man jaaxal na ma mais nekkati demeewul noonu nekkati seuil bi nga xam ne ni 800 yi li nga xam ne ni moo ko teree woon mu gëm mooy 800 yi deux bu waaj manqué woon benn wala ñaar rek li mu déposé moom quota bi ñu laaj dafay am. mais li mu am ay bëri na douze xaw ma ñaata doublon mooy li nga xam ni moom ngay yóbbu bu ñu calculer lële yeneen doublon yi ñu dindi ko mais loolu xamuma ko parce que nekkuma foofu par ignorance bi mu génnee mais bi ñu ma expliqué ñu wax ma ni mu tëddee damaa rectifier ne xamuma léegi nag ñu bëri am na lu leen dal ci xamuñu moo tax ma ne communication daf ci war a am appareil xaw ma ndax texte yi may na leen ñu wax mais bi phase bi ñu toll nii balaa ñuy dem ci phase publier liste yi. loolu je demande ñoom mu njaay si ña fa toogoon te nee nañu ñuy toog foofu di siéger dañuy am per diem dañuy am lépp dañ leen choisir te homme politique ñu génn wax ñu fichier bloqué yi xaw ma clé bloqué yi lan moo ko waral mooy kaawum ñoom Mouhamed Fadel Koné parce que man interpellé naa leen ci laaj leen mais liñ ma jox ci ay information doyu il faut ma dem complété ko de ñoom ñoo ñu ci war beneen bi fichier électoral bii ñuy wax mooy fichier bi opposition bi gagné mooy fichier bi Macky Sall gagné mooy fichier bi ñu amee majorité mooy même fichier bi ñu gañee Dakar mooy même fichier bi leen def maire Ziguinchor. mooy même fichier bi ñu daan dégg wax ni benn fichier bi moo fi am que les politiciens arrêtent te moom tamit dégg nañ ko. waaw léegi c'est que Mimi Touré waaw léegi Mimi Touré moom moo nañu woon fichier ba baax na nañu arrêté diriger élection opposition bi yëpp doon wax waxi fichier bi man dama wax fii ne leen élection. bu fekkente ne ni sàcc daf ci am peut-être que xanaa ñu dem ba ay préfet di annuler ay ay ay PV ak yooyu fekk voté nañu ba pare mais processus électoral ba ca vote ba depuis code consensuel bi kenn mënu fi sàcc élection te ku nekk balaa ngay dem élection ndax di nga mën couvrir territoire national mooy le première débat mais mënatuñ ko fi sàcc parce que enseignants yi nekk ci bureau dañ ko invalider moom Mimi Touré waaw xam nga déggoo la ma la demul woon élection da doon dem di xuloo ji da doon defante ji demul woon élection ah mais Abdou Abou élection non entre deux mois. dama wax ne la Mimi entre mu wàcc présidente assemblée nationale ci diggante boobu mu ne la candidat laa fi am naa fi programme xewul da doon faj mer mooy logique bi tam bi bi politiciens yi topp nekkuñu ci programme Sénégal dafay defante à chaque fois dama leen wax posez-vous la question Mimi Touré bu doon mooy présidente assemblée nationale. non kaw Bougane Gueye boo ma bokk na ci li tax ma posé question bi ak kaw Abdourahmane Diouf. Mhm. parce que dama gis Bougane Gueye Dany liggéey sur le terrain su dee social ci terrain bi kenn ëppale wu ko ci lu mu ci def su dee ay équipe ci terrain bi kenn ëppale wu ko ci chaque année mu ngi ci am expérience ci jëlaat ay leçons. Mhm. waaw mais bu ñu yegg waatee ba fii ma gis ko mu teg équipe technique gis ko ci terrain bi gis ko ci lépp mu dem ñu indiwaat même problème mu fichier moo tax xam nga lu tax. Mhm. mooy conseil constitutionnel ak commission bi ñoo war a setal seen bopp. parce que kaaw Bougane Gueye Dany ak kaaw Abdourahmane Diouf parce que kaaw Abdourahmane Diouf dama dégg ñu ne am na ci tour bi ay surcharge de nom mooy li fiche bi ñu jógee fu ñu war a def njaay mu am ñaari ci conseil constitutionnel loolu ñoom foofu ñu génn ñu expliquer ñu ko kaaw ñoom Mouhamed Fadel Koné bi mooy problème mu euh, ñi joxe clé nga déposer lépp ñu ne la sa clé mënul tijjeeku te ñu ne sa informaticien ñëw na looloo tax ma laaj la ne la loolu pend pour mu leer foofu ñoom ñu génn xam nga conseil constitutionnel buy génnee liste dafay wax li tax mu bloqué ñëpp da koy teg ci argument motivé ko bu su muy publier mais parrainage comme lu bees la man mi wax ak yow parrainage xeex nañ ci bañ tëj ñu ci kaso tëj ci ñoom suñu groupe yi tëj ci ñëpp mais parrainage après dañu mujj accepté ko parce que bu amoon woon nan la ñuy def gis nga li xew yëpp ci parrainage mais bu ñu demee ba teg en place benn commission de contrôle ni parrainage société civile bi nekk fa ñu tànn ci kuréel yëpp ñu nekk fa am na fa sax defe naa ay journalistes yu fa nekk ñooñu nga xam ne ñoom ñooy teew boo ñëwee ci seen kanam ngay joxe seen i fiche joxe leneen mais ñooñu après dañu war a génn leeral ñu ci li xew ci parrainage yu Bougane Gueye Dany leeral ñu ci li xew ci parrainage yu Abdourahmane Diouf parce que ku mel ni Abdourahmane Diouf xel day tey trop awale ni mu implanté woo ak awale li mu liggéey sur le terrain mais kaw Bougane nga xam dafa def expérience defaat expérience ba pare ñu gis ko nag ci ko aussi tamit muy liggéey ci